عاتب النصارى ترى في عرضهم لمالك مترى إني أخاتب النصارى ترى في عرضهم لمالك مترى خديم لرسول الله وأنني ما زلت ذات برء من كل من بالكفر ذات جرئي ولا أداهن ذوي تناصر إن شاء من يمن بتبصر سبحانه ربني إليه ألتجي ومنه تفريج الكروب أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته لو ما استسلامي ولتشهدوا لي بخولي معا يوما جميع العالمين جمعا الله ربي ظاهرا وباتنا حيث أكون راهلا أو خاتنا allahu rabbi zahiran wa batina حيث أكون راحلا أو خاتنا والمصطفى ومسلما مغر كل مجرم ومجرما كتبته أحمد ذا صلاتي على النبي الله ذي صلاتي كتبته أحمد ذا صلاتي على النبي الله ذي صلاتي ما جكني sajada way ngeen ji yonen ba yonen fal ko muy xutbu boroomam li tax way wi wolof te wara li yaara moo demaanar gaañi jàngul xam boroomam ma jooy te way ndaxte mu dolli may may géwël sañ naa wëri luy kañ boromam ma nettali fi jaloore te sulli fi ndam te wax xarbaax yu tax ngeen xam boromam te xejj ya yàlla fal xam nañu maqaamam ca xarbaax yaak ca may yaa xam boromam ca waliyu yaag ca xawsu ya sax fa diiwaan ca xutbu ya ak ña daawee ak ña xam yàlla ña xam yonen ca baawoon ba tey ji kenn jaaragul fa mu jaar boromam te wax ji moo ko wax ba ko noon yi yóbboo ku di ngat wax ji moo juyoog boroomam ca géej ga la lambe yàlla ba fekk mu tànq ca leeri xëy bu ya naan boroomam ca géej ga la daqe ki gaayam bu nuy maac muy taxaw faratay boroomam ca géej ga la moome mbootum kun ci baytin bu noon bi fa bekkenoo mu ne kun boroomam ca géej ga la bamba tijjee ndam bi xam-xam ba fa yor xaluway xalim ak boroomam bàgg ci yàlla xagg ci ngën ji yonen ñu sopp soppi lépp muy mam mu saxal foofe ji xaari bakkan ci at di boole tagg ak julleeg wéetal boroomam ba faf seey mel ni suukar faf di yanen di moom muy moom ci baatin cay boroomam ñu bokk ko fal tofal ko ngërëm mu fab kun ñu wamaru yi jox ko mu jox boroomam di kenn ku ñépp xam foofee ci baatin tubaab yi bañ sëriñ si yéem boroomam faf dib jant tiim jëpp duniyaa di taalif téere yuy sellal boroomam malaayka ya seere pal ga mu am fa diiwaan mu fa lay xut bu ñuy dee ak boroomam balaa la fa am ci saahir ak ci baytin ñu diisoog moom te mooy jaasi boroomam te mooy yonen faf ci kaw suuf di mbootum kun ci lépp lu soob boroomam mu laq ngërëm ci saahir ak ci baatin maqaamam fawxa mboolem ñooñ boroomam sëriñ Tuuba di maanaam jax ku dem duy ku soobu ni bu gënee boroomam ku soobu tewey te aw yoonam wa feesal ci ay leeram ba faf di duyal moroomam ku soo dex na xam ndox dof bi yeewul te watum ndox lewet ne te wex ca biiram ku sàggan sànku faw te lab te doo duy te doo set doo setal doo xam boromam melay Bàmba waaju xamul na dégloo te roy roy luy jikkoom moo xam boromam day jox aji laaj di dimbale ay dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boromam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy boroomam di faj aajooka xam lay mbóot di seexal bamba di génne ci tuskare jox boroomam di fekk ku ñépp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñépp faale ko mook boroomam di fekk ku ni man jàngul liggéeyul mu seexal sol ko xam-xam mook boroomam di fekk murit bu dof bu tilim ferul baa mu fóot ba mu set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 kudul boroomam lu mbir rëy rëy da koy faf dolli ak gëm du yokki du daw di mu farak boroomam du déggu noddu mbaab kabar te teewul lu taw taw ak lu liw liw cey boroomam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàllaam du tiis ba mu tax mu war faratay boroomam du tab ba du wute musul di maamun du gàpparu bis gis du wéeru jullil boromam du yeexee wenn waxtu te musul a fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax mu boddi kuréel ya koy laaj du wopp ba tax du ñàkk ba tax mu ba di kuréel ya koy laaj du denc alal lu dul téere yi boroomam du dox di nelaw ci ay lal guddi cay kii du lekk ba regg day mos ngir boroomam du dox di tëjoo ki dëkkaaleem ci ay kër bu weta ma nga ca ba bu natt jóge ba jëm si ca njaboot daar daar loo ngir ànd ak boroomam yërëm naw ndaw xamal leen yoonu baatin teral naw mag ba jëbal leen boroomam seexal nay mbër tabax nay kër ci suuf si xamal nañu sànk woon ngirum boroomam te taal na ci réew mi taal bu dul fay ci duniyaa ma mbay moog boroomam daa daar ba ni nooy ba ni nemm ci wet te am njàmbaar gu te ragal boroomam woyof ba ni toyu diis ba ni gann wet lewet ba ni sap ak boroomam te sawar te lefog te yaatu te xër te am ngor di tab budul jeele lu ma am jox boroomam te rafet jëf saf xorom du waxaate réewul bari teggin ci ku mu ngir boroomam du xej ak seen du ay bokkam du jaambur ku ñëw mu teral la digal la nga xam boroomam du xaste du dóore ñàkkul bay fayanto du dog war maa ki bokkam mbaa boroomam du rummi du rok du janni du xotti saatir dala yaatal xëfal nga melni domam du matu du fecci wolere musula war nit du xaddi du nagu yërmande ngir boromam du bew du bajantu day wado ka du jeng du fëkki masam mba boromam du retanit nit du parparlo du sot nit du yakub der du tes nit ngir boromam ndegam ci wax ci koy yanen la lamboo mëneefu la nga ne lam yeeg boromam fu nuy raasee waajuy mel ni mii mbër woyof na ca kaw te diis na ca biir boromam fu nuy raaseeti kuy fab alxuraan ji di def ci taax di taalif ngir boromam fu nuy raaseeti waajoo xam ne buy way bamba buy way araf wu mu def aras di bég ak boromam fu nuy raaseeti buy dox du geesoo day romb dërëm yi jëm ci mbirum boromam cay fu nuy raaseeti waajoo xam ne buy wax ku nekk di lox di làqu kudul boromam fu nuy raaseeti ku gis ahlu badrin di ànd ñoom di deeyaaleeg boromam fu nuy raaseeti waajoo xam ne fu mu teew ku wopp mu faj ku dee mu yëgal boromam ko bañ bi xut bu bay raasi moroomam du gis ku ni mel ci ji jamonoy boromam gisee fu ko woon ca gaaña weyoon ca baawoon te xarnu yii nuy jëmit du ci ñaw moroomam ku weddi ba nga bëgg ni may moroomam na def li mu def te wax li mu wax boroomam mbaa nga dox limu dox ca réewi Gabon ya Congo ca ay ba dellu si cay moroomam te sakku ku mel ne شيخ ابرافات واحمد دندمبه مبا علم ببرومم تسككو ملنا شيخ عبد الرحمن لو كجدو فمبك مولا خمل برومم mbaa nga sakk ku laq jagleeg saydi maxtaar ku dem ba siyaare yonen moo kii doomam mbaa nga seexal kem li cheikh bamba seexal te sellal seeni xol ba nu xam boroomam te sakkal leeni mbooloo faw yu jëf te tàggat leen ba dunu mën a mooy boroomam te bu mu diingat sëriñ si bu mu fayantoo te bu mu bég ngir ku koy gottil moroomam te bu mu xas nit te bu mu jëw bu mu ramba jit te bu mu fen bu mu dagu bogg ak moroomam te ga nasaxal liggéeyal ngeen ji te bu mu tere muy taxaw faratay boroomam te day xam buuti xol xam bëtinum nit di saafara rag yi di xalam boroomam tegan na saxal jaari bakkan ci boppam te muñ tiis ak naqar te ragal te bu mu diglee ka aaye ci wàllu bakkan di woo tefa kaw te biir ba gisul boroomam li lim doy na yow Muusa taxawlul ba tey jofagoo lu mat asakay boroomam ku bëgg di mbër melay seetal ku ku mel nii mooy doni xut bu boroomam ku dégg ma jàng way wi nang ma ñaanal nang ma ñaanal nang ma ñaanal ma sax ci ndigal di jëf faratay boroomam